gis ngeen ñëpp. alors ci rubrique bi lañ bokk donc ñu ngi leen koy may. donc. daggati nañ suñu carotte. ak euh, betterave bi. xolli suñu gingembre. suukar nag du ko jar parce que ñaari éléments yi nga boole yëpp dafa am sucre. Ah, moom nga ah, expliqué ah, daal di ne saccharose ak fructose. fructose voilà. am na fructose am na saccharose am na lactose nga xam ne ci lee la yooyu yëpp euh, onze ngay dégg. <laughs> suukar ak alors donc euh, foog naa ni fili léegi xarañ na ci wàllu génétique bi. fili foog naa mën nañu taal aw ah yëkkati. su ko man damay su ko jula jabagate de lagare jey sago de lagare ami jabate de lagare umu karute de lagare mama sheri anga tagade sigite na komiba mame tagawalo banare moromusu sakiliba mamare kan sutu mamare neni furumuso ande be mama kede mendo yeah mélanger couleur bi def ko ni ça mu mélanger xaw xaw a dëgër tuuti. lii moom mooy li nga xam ni moom mooy résidus yi. nekk am na résidus. alors euh, donc lii soxlawul nga koy def ci biir moo tax ñu am ñaari place yi kii di ko xelli. alors kii di retenir kii di retenir li nga xam ne mooy résidu. parce que lu nekk am na résidu te donc résidu yi da nga war a def très attention. alors donc lii bi dëgër na par na taxaw léegi voilà mu carotte betterave. Hmm? couleur bi de moom macha allah moom. gingembre soxlawul nga ci def euh, suukar comme fi ñu waxe parce que kii am na un sucre naturel. Hmm. am na un sucre naturel boo xam ni euh, soxlawul ngay yokk. yokk-yokk yi moo tax ba ñu am problème ndax euh, lu naturel nga jël defaat ci leneen. effectivement ce sera fois plus sucré que le sucre. alors on a besoin de nos sucres lents d'ailleurs les sportifs. Euh, souvent dañ leen di jox ay déjeuner yoo xam ni sucre lent la nga xam ne bu ñu ñëwee ba ci terrain bi alors dina leen jox ay vitamines d'endurance mhm. dina leen régénérer mais les personnes du troisième âge comme ci ñoom la ñuy jublu woon mhm. kii daf leen di régénérer seen cellule di leen revitaliser joxaat leen les minéraux donc essentiel essentiel bi nga xam ni moom la ñu soxla. ndax nii nii ñu ko tegee nii. ñi nga xam ne fekkee wuñu bi ñu koy defar buñ ko ñu dañuy defar ne bisaab bu xonk la. Mhm. alors que betterave waaw pour ñu wan leen ne du xonk. c'est entre la carotte. ak carotte orange ah, et tuuti jinjeer rek. la betterave violette. Ah, alors qui nous donne un très bon goût foog naa ni war nañu mën a jox. d'accord mais balaa may déguster dama lay laaj est-ce que ce jus mën nañ ko defar en quantité def ci bouteille pour mën conserver il faut le prendre naturellement parce que xëy na bu toogee deux trois jours est-ce que duñu am possibilité mu fermenter aussi. très bonne question. Mhm. avant que muy fermenter foog naa il faut le faire frais aussitôt voilà day yéeg ah. naa ni fili <laughs> nii ascenseur bi mi ngi yéeg bu yéegee mi ngi xarañ loo lii nga xam ni moom mooy xel mi mhm. ak euh, neer yi ak euh, buy wàccee aussi am na leneen lu muy def hmm. alors donc euh, on l'offre à toutes les personnes du troisième âge qui nous suivent à travers cette rubrique diététiquement vôtre hmm. pour vous dire que nous sommes là pour et dans un Sénégal de paix. D'accord. Il y a quelque chose qui m'a échappé. On peut le faire naturellement ou bien conserver voilà euh, on peut pas le conserver pendant longtemps ça doit se faire automatiquement car ça peut se décomposer dañuy bari mu fermenter décomposer mhm. alors donc fruit bu euh, frais dañ ko war a def defal bu frais jus bu frais tout ira mieux dans le meilleur des mondes qui est le d'accord parce que y a des produits quand ils sont fermentés c'est pas bon du tout ça peut amener d'autres maladies je prends le cas des problèmes de de de comment on encore

carottes ak euh, gingembre c'est ce qu'on a mixé pour sortir ce bon jus comme l'a dit Pape Amadou il faut le boire frais très frais ne pas le faire euh, conserver entre 2 3 jours pour risque que ça fermente on se retrouve en tout cas demain pour un autre menu peut-être un jus qui sait on va voir ce que Pape Amadou nous propose merci beaucoup Awa ci marché bi